non DG bi. mais DG bu mel nii moom mosuma ko gis. ah. dollars. waaw. DG ma ko DG mat na liñ ko fare lii mooy DG sax lii mooy real DG nag real DG ngi nii real man maa ci moom de real DG sans complexe. waaw. fii am na lu bëri luñ ci mën a def du ñëw jouer concert rek mais salle yaa ngi fi am na ay ay ay yu bëri ku ci am say idée la place su fête la nañ ñëw dekkil ko lii suñu yëf la ñoo ko moom rawatina na ñu def ambassadeur waaw ku doy waar nommé nga koo xam ni boo ko laalee laal laalaake de buse maag mooma àndoon Rwanda jëri trophée ànd États-Unis jëli trophée ànd Côte d'Ivoire jëli trophée ànd fu ne jëli trophée te fépp fu ñu dem dañu koy nawloo yëkkati ko fonk ko teg ko ca kaw kon nag tey lii nga def nii ñun ñëpp nga ko defal ndax wane nga ni li ñuy jéggaani ci àll ba fii la gën a yoyoo ambassadrice bi nga ko def ah turu Jolof Band. dëgg la ndax ñi muy liggéey ndool ku si gën a tuuti li nga li nga def ak moom. Mm-hmm. def ko 17 ans ak moom. dëgg la kon kii la. dëgg la waaye tamit muy PDG. muy mm-hmm. suñu patron ñun. Mm-hmm. ndax ku buy créer ay. Oh. c'est le star. la reine de la musique africaine. dama ne Viviane ku ko yab rek da ngaa jënd réew mi. laay kontaan nañu DG kontaan nañu de ñun de bég nañu. man moom DG bu mel nii maa ngi koy soog a gis ci àddina man waxantuuma xam nga ne samay ma ni li may wax nëbbuma ko ragaluma ko gisoo ma fenn may wax lu ñàkk fayda ci àddina waaye DG bu mel nii maa ngi koy soo gis ci complice bi yow ak gars yi gis naa dugg génn bi temps ma fi toog nii rek gis naa li ngeen sekk gis naa ni ngay doxalee gis naa gëm-gëm bi nga am ci liggéey bi gis naa ñàkk complexe bi nga ñàkk complexe mm. su la neexoon nga toog fee aj say tànk naan maay DG bi mais yow yaay staru grand théâtre te man gëm naa ni gëm naa ni grand théâtre dina mel ni Olympia bañ tëggoon. barki borom waaw yàlla yàlla guddal seen fan. ambassadrice bu mat ambassadrice gi bi Viviane Siri. la ilaha illallah ah doy na waar. doy na waar. <laughs> signature contrat ambassadrice.

indi fi Ouzin Keita ku ne na ci jàpp rek wut fi dar rek indi fi Ouzin Keita waaw waaw ba pare grand théâtre salle réunion yi rek boo gisoon salle réunion yi ni mel boo ko visité da ngay bàyyi àddina